takk na ba jeex tak muy lo xamné ne mi ngi am ginnaaw décision bu jógee ci chambre criminelle bu Dakar daal di condamné Ousmane Sonko leader bu Pastef à deux ans de prison ferme disqualifier les faits de viol ak menace de mort topé ko li ñu wax corruption de la jeunesse daal di ko ci daan di fatali né mom procureur ba muy def réquisitoire am ca corruption de la jeunesse boobee sax la mu ci sàkk woon moo ñu tëj Ousmane Sonko juróomi ati kaso lu ci mu ci am délibéré ba daal di

dañu ko jugé en coutumance donc euh, du mën def li nga xamné ne euh, moom appel ndax bu fekké dañu le juger te fekké wo yi la mbir euh, doo rek amal li nga xamné ne moom appel moom moo tax kenn ci avocat am di maître Bamba Cissé mom dal dellu ci watna ci mbir yi ni mu démé won tumani auto bi mi ngi tak way tam ci côté bi nga xamné gis nañu né dañu ko baare mel melné 4-4 le moo nekk noonu 4-4 moom lañu tal non fi tam ci tal bi gis nañu né tal yépp dañ ko daal di barré. loolu moom moo xew euh, ci euh, point E Jomali euh, université Cheikh Anta Diop. comme euh, ni ngeen ko gisee oto bi moom euh, tàkk na ba daal di jeex mi ngi xewee fii ci Point E ginnaaw manifester yi nga xam ne nemmeeku nañu ko fi euh, sànq rek bi ñu joxe verdict ba jogé euh, ci chambre criminelle bu Ndakaaru mom Ousmane Sonko ñu dal di koy euh, condamné à deux ans de prison ferme euh, tax na nag ñenn ci ay ndaw wacc ci talibi bi jamarlo ak les forces de défense et de sécurité fii ci point E nga xam dañu ci gis calme tay nak mel na ne nañu ci li nga xamné mom moy yëngu-yëngu ndax gis nañu né tal yeeg euh, dañu ko euh, daal di euh, baare ngir ah, bañ auto yi daal di jàll ci université am ñu ñuy xamal né amna ay jàmmarloo yo xam ci jamono ji daal dina fay am jamalo yu metti yo xam mi ngi tambali rek juste bañu joxé verdict bi ci chambre criminelle bu Dakar gis nañu ne itam kenn ci avocat yi doon na layal Adji Sarr ñoom it am na ay kaddu yoo xam ne daal di nañu ko fi wax Dia job ni ni. Kita nak ke kalau. Thank you. ci tali bi euh, ñaari oto yu ñu lakk ba noppi bàyyi ko fi euh, ci jamono ji ma ngay tàkk tàkk metti ndax ñuy fàttali fii nga xam ne ci point E euh, tey manifestation yi jàll si na fii ginnaaw université Cheikh Anta Diop nga xam ne ba léegi ñi ngi jàmmal la mën nañ la jël bi nga prononcé waa Euh, fii nag nekk euh, boutique boo xam ne euh, dañu fi jaay ay yérek yu ni mel gis nañ sax teg nañu seen ay buntu waaye seen pot de fleur yi nga xam ne moom moo nekkoon ci décoration beeg yooyu yëpp daal nañu koy daal sànni Euh, ci fi nga xam ne moom mooy ci tali bi euh, ba noppi itam lakk fi beneen oto fii ci point E euh, mun nañu jàpp ne ñaaxi yi oto daal moom moo fi lakkagum waaye ba ñuy ñëw itam fekk nañu police teg loxo kenn ci manifester ci ñi nga xam ne jot nañu ko daal di daal fekke Merci beaucoup. Courage. waaw ñëwoon ñu jël ko waaw ñëwoon question moo waaw nga posé question nga nga présenté wu waaw nga tudd Dut Kan fan nga dëkk fii point la tey li jotaam ci manifestation ay yàqu-yàqu ñaari oto yu ñu taal nu ngeen ko jàngatee non xale yi nag dañuy ëppal mun nga def lépp mais sëf taal booy lu ñu def nii du yoon ay kër jàmb lu ñuy dugg dugg di taal te loolu seen yoon nekku si ñoom ñu taal yàq bi moom d'accord ñu si li ñu def nii ay boy yu ndaw lañ mais wóor na ñi si rax ñi ay sàcc lañ sont des valeurs du yoon. discuss ne ah boo tëjuwul soxna si ñu song la te léegi wóoratu léegi booy arme blanche ñu yor mën nañ la rey si erreur mais boo nga tëj sa kër loolu du yoon. bi en tant que sénégalais. waaw ah procès nag moom dafa doy waar nag jàng naa ko ñu ne ma waa ji daal